léegi ku wax ku wax Sénégal wax wax tamit droit euh, def manifestation loolu sunu charte moo ko tëgg. Mm-hmm. mais opposition bu ñu bëggee jóg rek gars yi gàntal leen ko yàggul dara ñu ngi woon Dakar bëgg a dem ci mankaanab jëwriñ bi ñuy dénk wàllum intérieur. Mm-hmm. ngir wane seen naqar ci ni ñuy doxalee ci wàllum euh, yenn ci ay candidat wala bokk ci wàllum fichier beeg yeneen mm-hmm. mais ñu ñu noot leen du duñu dugg foofu. est-ce que loolu demul ci maanaam jox dëgg tamit li fi waa droit de l'homme yi waxoon ci wàllum rapport Amnesty International par rapport ak yenn droit la manifestation yi nga xam ne dañ koy waggaati di ko xaññee nañu. Ah je pense que ministre de l'Intérieur ko mën ci intervenir sur 300 demandes de manifestation les 275 ou les 280 ont été autorisées donc plus de 90 pour cent plus même de 95 pour cent. donc euh, pour li xawoon ministère de l'intérieur c'est un arrêté qui a été pris jamono Ablaye Wade man ma bokkoon si ñu koy xeex je ne suis pas de ces politiciens yoo damay wax démb lii tey ma koy woo tey ma koy lii je suis de ceux qui pensent que arrêté boobu baaxul démb baaxul tey je pense que le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye il a un peu parlé dans ce sens qu'il est prêt à discuter avec la classe politique pour que ñu mun ko changer donc arrêté boobu baaxul parce que jàpp naa ni autorisation de marché waroo am fu ñu koy limiter ci dëkk. maintenant euh, à y voir de plus près opposition bi xam nañ ni mëntuñu mobiliser moo tax ñu jéem a dem foofu boo dee xool en réalité ñu fa nekkoon mën nañu sax 200 personnes. en réalité. mooy mais kon moom Thierno kon génne mais dafa ne gis nañ ko. mais nag dëkk xam nga xam nga xam nga ville xam nga ville. Mm-hmm. ça pose un problème xam nga ville dafa xat bu ñu fa taalee ñaari la lacrymogène sax ñëpp li ñu sonn ñu ñëpp génn yow di daw ak yooyu noonu mais ñëpp xam nañ ni marché bi quand même mobilisé wuñu li fa nekkoon mat ñu 200 personnes en réalité bu ñu bëggoon marché di gën bu ñu bëggoon def manifestation ñun ñun en dañu boo xool ci société bi nga xam te ne dañoo nekk ci di def ay manifestation mais dañoo am place euh, place de l'Obélisque nañ daan dem dif ko di ko feesal mais ñoom nañu woote place de l'Obélisque ñu kii autorisé leen mais xam nañu en réalité aujourd'hui Sénégal yi gëmuñu leen moo tax parce que xam nañ ni ville moom dafa ndaw ñaari commission bu fa tàqee mu mu mel ni réew maa ngi tàq moo tax ñu fay dem non xam nga xam nga en réalité l'opposition jubboowuñu amuñu mbooloo te tey jii xaw ma kañ mais jamono ji ñu toll président Macky Sall moo xew ci réew jamono ji ñu toll. parce que moo fi def loo xam ne nit ñi d'accord nañ ci ak ci. jàppoon ni tamit matériel yi pour euh, si wàllu marché bi bu ñu ko encadré marché ko gën yenn maanaam. non mais c'est xam nga aussi gis réew gis réew il faut ñuy moytu anarchie xam nga bu nekkee ku neex def ci li ko neex réew mi kenn xam fu ñu jëm. kenn xam fu ñu jëm parce que ville quand ni mu xatee noonu man jàpp naa ni. ku bëgg a manifester Sénégal am na fu bëri foo war a mën a manifester mais ville dañ ko war a bàyyi parce que quand même saa ñu fa manifester gis nañ ni ay millions la nit di perte ñëpp xam nañ ni centre centre centre ville fa la économie Sénégal yëpp presque nekk mais buñ ko bloqué ndax ay manifestation dina am lenn kii lu mu ci indi. am leen lu muy indi bu ñu bëggee manifester nañ jëm place de l'Obélisque nañ jëm VDN nañ jëm feneen ak feneen mais parce que xam nañu mënatuñ mobiliser moo tax ñu bëgg a dem ville courte courte courte. ci kër yi def ni ngeen def pour parrainage comme président li wax ci ñetti millions yeeg yan. signature yooyu. Ah, waaw ah non mbir mi xam nga lu moom bu ñu ko rosee yow yow yow boo fa teew force force obligatoire lay am candidat bu mu neex. candidat bu mu neex ak bu mu naqari moom. yow moom xanaa mooy gañe da koy am. Ah. waaw da koy am. waaw da koy am loolu yow loolu leer la. jërëjëf <laughs> vraiment a moi qui vous qui vous remercie. Euh, yi loolu moo nekkoon sunu émission entretien ak euh, numéro bi ñu jagleeloon wàllum actualité politique doon dalal euh, Serigne Mame Thierno Ndiaye ci génération jëf génération. jëf ak Mame Thierno ak Serigne Mame Thierno ngeen jégal ma nekk fii ci Grand Dakar di yëngu ci wàllum politique ngir gunge. jàppale mi président la république Macky Sall ci élection yi ñuy dëgmal ak wàllum parrainage bi jaa ngeen jëf ba beneen yoon.